mbokki internautes yu DKR 221 mbégte la ñuy am saay su ne di janoog yéen di leen dégte li nga xamante ni nag euh, moo leen di intéressé bokk na ci wàllum actualité bi nga xamante ni saay su ne dañ koy daal di topp li nga xamante ni moom la dëkk bi nag di doxee rawatina nag di ci euh, daal di dalal nag ñoo xamante ni nag dañ leen ci gis ñu ràññeeku ci lool euh, ci par seeni analyse ak itamit niñ koy daal di nag toppee moo tax tey ji nag ñuy am mbégte dalal fi ki nga xamante nekkoon rappeur nekk koo xamante ne engagé wu na lool ci wàllum nag activisme fii euh, ci diwaanu Sénégal rawatina nag ci dëkk bi nu muy euh, doxee euh, di nag daal di xeex saay su itam wàllum injustice ak i tamit ni ka ni nga xamante ni noonu la nag sunu njiit yi daal di yore réew mi mu daal ci nag engagé wu bu baax a baax Simon ñu lay nuyu bu baax a baax ñu bàyyi la itam nga daal di nuyu sunu mbokk internet yu DKR 221 waaw di leen wax waaleykum salaam di leen remercier ci invitation bi et di nuyu internautes yëpp yu ñuy yu alors Simon dañuy daal di attaquer directement wax ci li nga xamante ni euh, xëy na bu ñu toogee fii te waxuñ ci sax dinañu daal di wokk euh, ndax gis nañ leen ci ni ngeen ci daal di taxawee ba taxawal ci benn euh, mouvement boo xamante ni xëy na même bu ngeen ko bañee sax bokk na ci li tax nag li motiver nag mouvement boobu daal di juddu muy M2D Simon Kouka déjà mbirum Sonko Adji Sarr bi nekk mbirum actualité boo xamante ni xëy na fu mu toll ni mu ngi def bu baax a baax média yi di wër média ci ñu koy waxtaanee fépp procédure bi ni mu demee depuis le début ak fii naka ngeen jàngatee procédure bi muy ca euh, levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ba ci euh, ni nga xamante ni noonu lañ ko daal di convoqué ba niñ ko bàyyee fi euh, jamono ji nga xamante ni moom la ñu daal di àddoo. waaw bon ñun déjà ça a très tôt été benn combat de principe parce que même bien avant ay ay levée immunité dañu convoqué benn député. sans pour autant dindi malaa malaanu kiraayam muy euh, levé wuñu maanaam immunité parlementaire am mu nekkoon vraiment benn violation des droits de l'honorable député Ousmane Sonko donc ñun très tôt on a eu benn position de principe à savoir que ne euh, lii nii xew ba pare indi ay police buntu këram et cetera chargé ses ses euh, partisans ñëw jàpp si ñenn ñi yóbbu tëj Euh, fekk ñenn ñi sax ba seen ay biir kër jàpp yóbbu et que tout ça constitue vraiment un recul démocratique et police boobu wala gendarmerie boobu moo la gën a xam ne munoo ñëw convoqué député noonu ñoo ñu gën a xam ñun loi que ne loi bi lu tax jaaruñu par assemblée et que ñun tànk boobu lañ si mës a taxawee maintenant bu ñu taxawee tànk boobu ñu gis ne état bi di persister dem di jàpp ay nit ay waa FRAPP ay souteneur Ousmane Sonko ay euh, nit yi di déposer ay marche ñu koy refuser comme euh, ñoom euh, Clédor Sène euh, Dame Mbodj Karim xaax Xax nitu dëgg et cetera donc ñu taxawee ne je crois que Sénégal mérité wul lii et que démocratie bi mérité wul lii donc tànk boobu lañu ci taxawee donc ñu waxoon très tôt que ne lii ça concerne deux citoyens nañ ko bàyyi ci loxo justice mais c'est pas normal ñuy instrumentaliser justice pour bëgg a dem jël nit ki force pour pour pour et cetera et cetera donc tànk boobu la ñu ci taxawee et ba tey moom la ñu taxawee ñun on estime que ne ces deux citoyens sénégalais na dem ci yoon que les responsabilités soient situées et que. yéen euh, yéen est-ce que euh, procédure bi donc am na quelque part foo xam ne dañ ko biesee waaw c'est dès le départ de le dès le départ parce que tu no comme ni mu ko waxee donc du noonu la ñuy convoquer député donc très tôt ñun ñun tànk boobu la ñu taxawee. et tant que boobu lañu taxawee ba tey à voir tout tout tous les reculs démocratiques yu am autour de cette affaire mu am benn kabal mel ni dañu bëgg éliminer benn opposant parce que lu opposé ñaari sénégalais on a vi tout l'appareil étatique et surtout waa Benno Bokk Yaakaar ci plateau yi mel ni ñoom ñooy avocat yi mel ni ñoom seen bopp la ñu violé mel ni ñoom seen bopp dañ ci am benn intérêt ou quoi que ce soit donc on a tenu à dénoncer ça parce que quand il a s'agi de Karim wad kenn waxul kenn jógul parce que c'était benn demande on va dire populaire mais Karim Wade euh, était au même banc d'accusés avec énormément d'autres euh, personnalités po po politiques ñeneen ñi kenn inquiété wu leen moom rek la ñu inquiété gars yi def tek on a vu la même chose avec Khalifa Sall avec la caisse d'avance gars yi def tek donc bu ñëwee avec Sonko on a estimé que ne il est temps que loolu dagg que Sénégal mérité wu lii parce que ñii nii toog fii avant seen juddu sax dafa am ñoo xam ne dañu doon xeex démocratie e ñun ba tey ci tànk yooyu lañ nekk di xeex pour que mbir yi jaar yoon. mais yéen seen seen euh, surtout yéen waa m 2 euh, mouvement bi. ñun dañuy am problème souvent bu ñu déggee seeni discours wax nga ko léegi nee nga euh, mbir mi ñaari euh, mbirum privé la nekkul mbirum état au départ euh, mbiru privé la dox ci diggante Sonko ak Adji Sarr ngeen ne dañu waroon bàyyi yoon def liggéeyam ñu bañ a instrumentaliser instrumentaliser justice bi mais buñ leen gisee. à côté ñu ngeen di dem toog ci ay plateau télévision bu fekkul yow peut-être yow defoo ko mais am na ñi nga xam ne bokk nañ ci yéen di ko def di courir par-ci par-là pour dire que non dañoo bëgg a liquider benn adversaire politique yéen ca njëlbeen a commencé di ko di ko politiser mbir mi. bon ñun mënuñu ko politiser parce que amuñu ci benn intérêt politique. ngeen jàpp ne donc dañoo bëgg liquider benn adversaire politique te à côté yéen a ngi naan lii mbirum. ñaari nit la yoo xam ne dañoo war a bàyyi justice bi def liggéeyam. parce que expliqué naa la ko léegi loo xam ne mbirum ñaari nit la lu si yoonu ay ministre ay député ay directeur d'agence euh, yoo xam ne ci APR la ñu bokk ci nguur gi la ñu bokk ñëw di taxaw ci plateau yi di xalab mais yéen njëkk wax yéen ba avant yéen président Macky Sall ci njëlbeen moom moo njëkk ne njabootam bu ci kenn wax mbirum privé la wax na ko EDF wax na ko feneen yéen yéen a doon nekk mouvement yi ak activiste yéen a doon nekk ay Clédor Sène ay ay Guy Marius Sagna di nekk di toog fu nekk naan ay ay dañoo bëgg a euh, éliminer benn adversaire politique dugal ci wàllum politique ci loo xamante ni mbirum privé la. bon xam nga man mënuma àddu ci ñi nga xam ne ñeneen ñi ak seen mouvement lu ñu wax mais dama ne boo xoolee ba tey déclaration Y ñi bokk Y'en yor kàddu Y'en muy ay ñoom Aliou Sané di ay ñoom Thiat dañu yàgg am benn position de principe mooy pourquoi tout cette tout cette armada là alors que levé wuñu immunité honorable député qui a été élu au suffrage universel au même titre que Macky Sall ñu commencé gis ay dysfonctionnement yu bëri limal naa la ci tout à l'heure ñu gis ay kidnapping ay arrestation tout azimut amul bopp amul genn ñu ne ah mais lii du yoon suñu noppee donc wàcc nañu suñu charte ci la ñu commencé wax ñu ne ñun dañu yàgg wax ne daf ñu nuru lii daloon Karim Wade dal Khalifa Sall et c'est un recul démocratique que quand même au Sénégal à chaque fois qu'on veuille casser de l'opposant du yoon ñun on est de la société civile mais on n'hésite pas des fois bu ñu gisee loo xam ne du yoon et que suñu constitution autorisé wu ko ñu jóg yéey ci yàbbi ci donc ci loolu la ñu nekk boo xoolee combat de principe boobu la ñu nekk m 2 nag dafa rassembler ay politique rassembler ay mouvement citoyen rassembler ay personnalité euh, politique individuelle et cetera et cetera maintenant ku ci nekk peut-être sooy wax da ngay wax en fonction de lu arranger ce parti mais ñun suñu kàddu ça toujours été clair on est là pour que ñu bañ a salfaañe démocratie bi pour que ñu bañ ko piétiner pour que mu bañ a am recul et on va toujours continuer à se battre pour ça taxawaaye Ousmane Sonko loolu la à chaque fois nenaa la beneen camp bi ngay gis ñuy génnee di trafiquer ay voix nit di taxaw ci plateau yi di défendre alors que seen yoon nekku ci ça concerne deux Sénégalais nañ leen bàyyi ñu dem mais bu ñu gisee ne nag yoon dañu nekk di ko instrumentaliser di ko kii dañ ciy taxaw wa wax ci parce loolu taxawaay boobu la ñu mës a am depuis jamonoy wàdd moom la ñu am on ne se bat pas contre des personnes on se bat contre un système et on se bat pour que quand même cette démocratie là elle continue vraiment à briller de mille comme nu Sénégal nekkee benn vitrine un peu partout ci Afrique mais bu ñu bu ñu bëggee am tuuti sa commentaire ci mbirum euh, viol boobu supposé viol boobu nga xamante ni euh, moom lañuy dal euh, daal di daal di wax est-ce que quelque part Adji ci boppam d'après interview bi nga xam ne accordé na ko waa leeral point net est-ce que nekkul moom quelque part benn victime mënuñu ko accordé li nga xamante ni mooy bénéfice du doute moom si sa commentaire yow personnel loin de Y'en a marre conviction Y'en a wala ay ay ay m yow sa commentaire personnel non dama du ma ci wax bu dee personnel j'ai l'impression que cette fille là elle souffre quoi j'ai l'impression que cette fille là elle a besoin non ci je sais pas sentiment la rek qu'elle a besoin d'aide que nu ñuy waxee Free Sénégal nu ñuy waxee ñu respecter les droits de l'honorable député Ousmane Sonko noonu la ñu war a waxee nañu libérer tamit xale bu jigéen boobu quoi may ko jàmm quoi parce que j'ai l'impression que ne sonn na quoi sonn na et que elle mérite elle mérite vraiment une aide limite psychologique. ne dañ ko jël en otage ba ñu war ko libérer wala keroog ci ni ngeen ko gisee mu toogee scénario bi nga xam ne ñëpp sentiment boobu lañu ñu am. j'irai pas jusque là mais booy liir entre les lignes da ngay xam ne kii elle est elle est vraiment acculée quoi elle est vraiment voilà sous l'emprise de personne wala de affaire yoo xam ne kenn xamul et justement il faut que. côté boobu mu leer justement il faut que côté boobu mu leer et c'est pour ça qu'on demande que les responsabilités soient soient bu dee complot la nañu xam ne complot moo tax tey treize personnes dee quoi voire quatorze personnes quoi tu vois bu dee du complot nañu xam ne tamit lu ci munti xew looloo tax tey mu am tout ces morts loo tax mu am ces saccages et il faut que les responsabilités soient situées mais man quand j'ai regardé j'ai pas tout regardé mais li ma jot a ci yenn images yi di da ngay da ngay yërëm xale bu jigéen bi ko ñu teg chapitre boobu wax ci mbirum démocratie bi nga xam ne sànq bala yaa ngi koy tudd muy recul démocratique bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ndax nekkul sa suñuy kàddu mais benn euh, étude boo xamante ni Freedom House moo ko daal di def xam ne ni nag ne Sénégal ci boppam fu mu toll nii dafa perte ay points ci wàllum nag place am gi mu daal di occupé woon ci euh, démocratie jéego yi nga xam ne defoon na ko ci euh, donc recul démocratique boobu naka la ñu def ba toll foofu ba agsi foofu fii mu toll nii ah xanaa am président bu bëgg a nekk buur moo tax mu kii il faut appeler il faut appeler chat chat il faut dire les choses telles que tey tey da ngay déposer lettre d'information pour marche wala rassemblement il te le refuse tey tu vois la plupart des des des des candidats qui font le poids waxuma la nag ay candidats politiques yi nga xam ne d'un moment à l'autre mën nañu jigi rek jaay seen ay parti dem lëkkaloo ak parti au pouvoir mais la plupart des candidats virulents dañuy am problème euh, gis nañ ko wax naa la Khalifa Sall wax naa la euh, euh, mm, Karim Wade mais wax naa la tam il faut tamit pas oublier Abdoul Mbaye qui a été victime avec son procès avec son ex-femme affaire yooyu noonu tu sens vraiment que ne ya a toute une machination derrière pour pour briser le gars xam nga nga gis Thierno Alassane Sall tey Ousmane Sonko tu vois donc en un certain moment da ngay gis même ay tey ay Bougane Gueye Dany on coupe le signal de Sen TV Walf on coupe le signal de Walf heureusement que là y net mais lu xew ak internet bi tooguñu fi benn guddi kenn mënul yónnee WhatsApp kenn mënul yónnee ojo kenn mënul yónnee dara nit yi di obligé yónnante ay VPN mais pour un pays qui a qui a qui a qui a vu Mamadou Dia se battre jusqu'à la mort Euh, Cheikh Anta Diop se battre jusqu'à la mort des professeurs Amadou euh, euh, Assane Seck on te parle de Amadou Mokhtar Mbow ñu koy delloo njukkal par rapport ak cent ans yi mais Amadou Mokhtar Mbow confié wu ñu ko fi benn benn réforme qu'est-ce qu'ils ont fait de cette réforme là kon lu tax ñu koy delloo delloo njukkal njukkal buñ ko bu gën a mag buñ ko mënoon delloo mooy ñu jël en charge réforme yooyu noonu xam nga les gens n'ont pas appliqué ce qui est sorti des assises nationales nguur gi nii 2000 entre 2012 et tey tëj nañ ma ñetti yoon xam nga ñoom ñoom ñoom Thiat ñoom Aliou Sané euh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Guy Marius Sagna Karim Xumxa Clédor Sène Assane Diouf da ngay nekk activiste Tunkara nekk extérieur sax nit yi dañuy dem ba extérieur di la fexel maa ngi gis kenn ku ñuy nekk fexel xaw ma Espagne xaw ma xaw ma Italie da ngay am manifestation xoolal parrainage ils empêchent les bus daw tata du daw taxi du dugg ville scooter du daw du dugg ville mais président Macky Sall bu Abdoulaye Wade defoon noonu 23 juin tey président Macky Sall dina nekk président ngeen bëgg a xeexee tamit du noonu parfois daf mel ne da ngeen abusé quand on parle par exemple de pandémie mi ngi fii on vous interdit les ngeen ñëw taxaw ne par force da ngeen war a manifester alors que xam ngeen feebar bi ni nga xam ne noonu lay def ravage ci àddina wërngal këpp donc parfois aussi est que du du ñu jël peuple bi teg ko ci kanam au détriment de yeneen yeneen yeneen yi nga xamante ni moom ngeen ne daal di xeex bu ñu waxee rassemblement yi nga xam ne tout le temps da ngeen da ngeen naka la ñu wax a xeexee jàngal ñu nu mën a jàng ni ngeen war a xeexee. da nga ni ngeen di xeexee du noonu xam nga boo woon est-ce que ni ngeen di xeexee noonu la. est-ce que vous nekkul da ngeen di abuser ci ni ngeen di xeexee. Euh, je te donne un exemple euh, pandémie bi li ñu fa dugal demande d'autorisation de manifestation bëriwul xoolal bien avant pandémie bi la plupart des manifestations de aar li ñu bokk de ñoo lank ont été refusées ana pandémie foofu. trouble à l'ordre public tamit nangul leen ko euh, préfet. non non ana pandémie foofu nañu wax ci pandémie ba pare foofu pandémie amul la ah. nañ ko teg de côté trouble à l'ordre public combien de fois toutes les manifestations qu'on a orga organisées qui étaient gis est-ce que mës nga gis trouble à l'ordre public ci manifestation boo xam ne moo xam Y'en moo xam ñoo lank moo xam ñu ñu ñu ñu ñu bon je ñu autoriser parce que c'est le langage alors que on n'a même pas le droit d'autoriser boo demander lettre d'information c'est automatique dañu war a mettre benn dispositif buy encadrer les marches yi ñu fi organisé marché nañu Charlie marché nañu euh, Rohingya yi bu ñu leen di rey euh, waa Libye bi ñuy rey suñu frère tous ces manifestations là qui étaient autorisées mais parce que c'était ay Rohingya ay Libye c'était pas envers l'État c'était pas envers le gaz et le pétrole pour demander mu leer mais toutes ces manifestations là ont été autorisées est-ce que gis nga fa trouble à l'ordre public est-ce que gis nga fa lacrymogène bu jóg est-ce que gis nga fa xeer bu jóg. mais parfois aussi li yéen li leen di euh, boole ak préfet tout le temps euh, lu ci bëri bokk dafay doon euh, itinéraire bi dañ leen tracé itinéraire yéen ngeen ne déet du ngeen ko dagg fii ngeen di jaar loolu aussi tamit problème la. mais nañu nañu def étape ci li ñuy wax ba pare dama ne ay marché Charlie ay bi ñuy xeex Libye ba ci ay rassemblement ñu doon def contre le franc fa ak euh, ak beneen bi waay mooy fatte naa tour bi euh, accord de partenariat économique APE yi euh, est-ce que xeer jóg na. nangul naa la ko li nga wax noonu. dégg nga tell est-ce que dégg nga boum est-ce que dégg nga arrestation il faut comprendre que ne si il respecte li nekk ci lettre d'information bi ñu mettre encadrement y pas de problème ba ci ñun bi ñuy organiser. en 2016 xaw ma 2017 suñu rassemblement où où c'était vraiment voilà bon doo dégg tell doo dégg bruit doo dégg dara def nañ fi rassemblement ak guinéens yi mais il y presque ay 2 millions de personnes ci ci ci kii bi est-ce que dégg nga tell est-ce que dégg nga il faut il faut reconnaître loolu c'est-à-dire quand on nous permet de de de de de de de de de dérouler ce que la Constitution nous permet à nous mais y' a problème. nangul naa la ko de mais. constitution mais xam nga kañ lay problème di am mooy bés bu ñu jógee ne gaz pétrole bés bu ñu jógee ne na sa rakk fay 400000 bés bu ñu jógee ne président Macky Sall y' a un recul amoo élégance démocratique parce que élégance bi Wade amoon il faut reconnaître que ne quand même Abdoulaye Wade loo ko xeex a xeex a xeex. système am je veux dire pas moom parce que. ko xeexoon parce que c'était pas moom mais loo xeex xeex le système Wade. il avait cette élégance démocratique de laisser faire su bàyyiwuloon 23 juin bàyyiwuloon après après 23 juin tous les rassemblements yu nit yi def tey Macky Sall ne serait pas président du Sénégal mais Macky Sall tey lan lay def gis nga le cinq bi passé bus dawul tata dawul euh, euh, euh, scooter du daw ku dugg ville on te pose 200 000 questions même bu fekkee ne sax kebaab ngay dem jëndi xam nga waaw nit yi di la topp ay arrestation ay nervi di yore ay yatt ay mais mais c'est quoi ce Sénégal là et après les gens s'étonnent que mu am recul démocratique et après les gens s'étonnent que les jeunes après réagir d'une certaine manière parce que ce sa ndaw quand même boo ko jëlee di ko pousse di ko oppressé oppressé oppressé ba mu doo au mur mais après ndaw ñooñu sen mer ku ci nekk ni nga ko sentiree nga koy fajee et loolu mooy indi débordement yi et c'est leur faute à eux à pour cent Mais bu ñu def la faute à ou à trouble à l'ordre public, non, quand même. Les gens se sont toujours. Yo, pour ak c'est Diam Salam, Arsay Caméraman, Gen Nyofi. De fois, nous avons nous pour nous am droit bini. Mais nous, si nous suivons cette logique, ne non, bu len trouble à l'ordre public, tout. Mais yo, tay do libre. Kon ba tay ñu lay dakk ji ci mbedd. Nangul na la ko de. Ngan constitution mom moko wax. Droit de marche mom mo len mais mo may aussi préfet itinéraire bii ngeen di jaar mën na indi trouble à l'ordre public biir ville aw leen nii yéen fu ngeen taxaw di marché tey ji euh, presse bi da leen fi fekk bu nekkee da ngeen bëgg ñu dégg leen rek mais lu tax parfois ngeen di dëgëranteeg ñoom point la woon rek lu ma bëggoon soulever leneen aussi euh, mag euh, président waa Wade moo amoon élégance démo élégance démocratique comme ni nga ko waxee xeex ngeen ko ba mu jógee fi keneen ki nga xamante jàpp ngeen ne moo gën a pire ñëw na ngeen assumer rek. assumer lan assumer lan. non rek ne noonu noonu la mel ah. <laughs> mais loolu sa serait une injustice de de toog ne noonu la mel donc on fait rien non dangay ngay xeex ba bés bi ngay tombé ci ku baax. Ah, léegi du ngeen ko bàyyi mu eggali ba 2024 après lu ngeen def ngeen def ko. mais loolu la ñu wax on a dit quand même démocratiquement ñun mais mais on a été même attaqué par pour, pour on a toujours di que ne mais jamonoy Wade bi ñu defee 23 juin après yenn parti politique dañu doon di commencé di scander au palais au palais ñun ñoo ne on vient de se battre contre quelque chose d'anticonstitutionnel d'antidémocratique du ñu def loo xam ne tamit c' est antidémocratique di dem déloger président Wade au palais non day jeexal mandat et la même chose on l' lu président Macky Sall dafa war a jeexal mandat li war a leer kañ mooy que ne il n'a pas droit à un troisième mandat loolu na ko teg ci suuf ñu jàll ci leneen sinon lu munti xew il sera responsable lu munti am il sera responsable parce que loolu duñ ko ko may tey duñ ko ko may suba duñ ko ko may gannaaw suba il n'est pas il ne peut plus être candidat il ne peut plus être candidat nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs première mandat bi jàll na deuxième baa ngi nii bu mu ci paree nañu ba ab nañu nañu abal that's it ñun foofu la ñu waxee mosuñu taxaw di scander comme yenn yi non allons déloger allons kii wala di jaay loolu bokkul ci ñun ñun man déjà ay le terme activiste ça ne me plaît pas je me considère pas comme un activiste je me considère comme un militant donc ci militantisme bu ñu nekk mooy bonne gouvernance donc boo nekkee ci loolu forcément da ngay bàyyi waa ji démocratiquement mu jeexal mandat am ñun foofu la ñu toll liñ ko bëgg a wax rek mooy bu mu fi jéem a naan ay troisième mandat wala leneen terme activiste activisme bi nga xamante ni nee nga ah, dangoo sa ah, bëggoo ko ah, ñu ñu àddu ñu wax ci mooy déjà ni ngeen koy defee yéen que nga bëggoo nga bañ ko yéen ñëpp la ñu boole tuddee ay activiste société civile nga bëgg moo tax ma ne nga bëgg ko nga bañ ko ni ngeen koy defee fi Sénégal est-ce que noonu la taxaw yuuxu saaga est-ce que noonu lañu ñu war a militer ma nangul la ko terme boo militantisme est-ce que mës nga ma gis ma saaga est-ce que mës nga ma gis ma saaga est-ce que mës nga ma gis ma yokk xeer sama loxo est-ce que mës nga ma comme kan ce que mës nga gis kenn ci Y'en a di saaga wala yokk xeer wala ne dañuy dem déloger président wala affaire yooyu c'est que il faut ñu nangul tamit ku nekk xam nga xam nga ñun dañ koy waxaat tey on fait partie des rares mouvement et militants de la bonne gouvernance la démocratie yoo mën a vaar de Wade à aujourd'hui waar nañ fi ñëpp koo xalaat politico mouvement citoyen o euh, activiste comme ni ñu leen di woowee vaar nañ ci vaar nañ fi ñëpp génnal ma benn vaar lu ñu doon wax ñun en 2011 ak lu ñuy wax tey loolu tax on a on est vraiment à l'aise xam nga tey bu may ñëw def euh, interview bi je t'ai pas demandé yan question nga may poser je t'ai pas demandé sur quoi on parle parce que je suis tellement à l'aise mënuñu ma déstabiliser si dara parce que dañu xam fu ñuy teg suñu tànk ñun nuñ koy defee xam nga nuñ koy defee ñun on a planté mille cocotiers ci euh, euh, corniche u géejawaay bi avec les scouts du Sénégal noonu lañ koy defee ñun ñoo def benn programme bu tudd suñu gox financé plus de vingt association pour ñuy def set setal reboisement ak ñuy aménager waat yenn. Y la wala Simon. Y en a waat ay espace public boo demee Gunaas boo jëloon sa caméra bi léegi ñu wàcc ci suuf jël oto bi dem Gunaas moom la benn place boo xam ne tuurukaayu mbalit la woon tey ay banc lañ fa teg. tey mu nekk foo xam ne mag ndaw nga gëm Y'en a marre nga contre Y'en a nit yi fa la ñuy toog di féexlu xam nga boo ñëwoon tey ñu dem Bargny kazaalika xam nga ñun ñoo ne ah gis nañu ay ndaw yoo xam ne xarañ nañu torop ils ont de bonnes not mais amuñu moyen pour yeggali seen ay études euh, orienté wuñu leen à l'université ñu répertorier ñenn ci ñoom dem utal leen bourse ba jamono ji am na ñu nekk di jàng Paris Sorbonne am na ñu nekk di jàng URSS am na ñu nekk di jàng état donc tu veux dire que nu ñuy militantisme boobu baaxul parce que yéen na ngeen jàpp mooy manifestation am na yee gars yaa ngi ci mbedd mi et cetera non il faut tamit reconnaître au gens wala au moins se renseigner sur les gens pour savoir que ne tey ils sont dans des wutum bourse dans des aménages ay espace public dans des euh, reboisements di planter ay garab di xeex contre l'érosion côtière di dem ay Saint-Louis di am ay programme pour mbël bël ba et cetera et cetera c'est comme ça qu'on milite et il faut ñu nangul ñu ko. nangul naa la ko nangul naa la ko waaye nee ngeen du ngeen ay ay ay du ngeen ak doo activiste mais militantiste nga leneen am na aussi muy euh, nee ngeen du ngeen saaga. xëy na dégguñu la ci yow dégguñ ci ñi nga fi lim léegi ci ay wàllum saaga xasteeg yooyu noonu mais bu ñu jàppee ku ci mel ni Assane Diouf tey ñëpp xamee nañ ko ba tuddee ko l'insulteur national ñëpp xamee ko ko bu taxawee tey saaga ñu jàpp ko yóbbu ko dugal ko prison yéen a njëkk taxaw ne noonu dañ ko war a bàyyi parce que prisonnier politique la benn instant dafa mel ni yéen da ngeen ni euh, bu ngeen ko deful tamit yéen a ngi koy suuxat. ku nekk ak ses armes moom su fekkee ne moom noonu la mën a xeexee mais noonu lay xeexee parce que pour insulter ou non. tu es pour ou non insulte yi. man je suis pas pour les insultes je suis pas pour la violence. ko xeexal mu génn kon comme d'accord ci. xam nga lu tax ma koy xeexal mu génn fa laa jëm xam nga da ngay gis saaga Assane Diouf xam nga ban saaga moo gën a grave koo xam ne tey lañ la fal ministre wala fal la directeur nga dëkk ci benn koñ boo xam ne vraiment défavorisé. mais ñu commencé ñu commencé la gis deux mois trois mois nga yéegee étage commencé écouler oto yi di rang juste parce que dañ la fal ndombal tànk oto yi di rang sa buntu kër 4 x yi nga yor yenn privilège yi changer commencé même ba changer discours ni nga doon waxee avant ak léegi commencé am benn condescendance avec le peuple bi nga xam ne ñoo lay fay ngay ñenn ñi di luubal ay xaalis ay détournement waxuma ko de IGE moo ko wax combien de directeur combien de ministres combien de gens du pouvoir le IGE épinglé ay milliards milliards yooyu buñ ko defoon ci ndaw ñi 480 morts doo ko dégg ci géej gi 480 morts moo gën a garaaw téeméeri junni yoon saaga Assane Diouf c'est plus vulgaire c'est plus insultant, c'est même criminel, c'est terroriste. Maintenant, tu mets Hassan Diouf en prison et tu mets pas des gens qui, dé, qui détournent ay milliards, 50 milliards, 25 milliards. Mais attends, 50 milliards, 25 milliards, xam nga ñaata emploi la mën a créer te ci emploi yooyu tu aurais pu sauver la vie de ceux qui yu jël est-ce que vie moo gën a important saaga et on veut mettre Hassan Diouf en, en prison parce qu'il l'insulte et ces gens qui détournent des milliards qui, qui, qui font perdre à des familles ay vie ñooñu c'est pas des insulteurs ñooñu c'est pire que des insultes moo gën a salte gën a ñaaw gën a criminel insulte looloo tax ñuy naan Assane Diouf lii mooy armam am na ay booy yoo xam ne saccagé mooy seen arme jël pën mooy seen arme am ñoo xam ne tey neneen lu gën a sauvage dem ay cambriolé ay Auchan mooy seen arme même si tu ne cautionnes pas tu comprends mais ci compréhension boobu noonu tamit booy woote démocratie état dafa war a am tànk boo xam ne te dee njaaxanaay parce que Assane Diouf saaga na mais Dumburu Sow saagul waxul nañu jël machette dem rey ñi nga xam ne il s'oppose au troisième mandat dañ ko te penda xaw ma naka ba saagul wolof yi ñoom ñëpp nañu nangamtaan seen kii mais pourquoi Assane Diouf rek saaga Assane Diouf kese la ñuy la ñuy Cissé Lo saagul suñu président ñun ñëpp ñun ñëpp yéen yow leen ay audio yu doon daw si selo muy muy muy muy muy muy muy muy daggal Macky. ñu ko mais il a politiquement. nañu sanctionné Assane Diouf politiquement ñu bañ ko. Assane Diouf du politicien de. Hmm. il est dans le terrain politique. mouvement citoyen mouvement citoyen ni ngeen bare nii chaque jour mouvement bu bees génn. gis nañ fi keroog la peuple. gis nañ m 2 yaa naa maar mi ngi fi. nitu dëgg des valeurs mu ngi fi yeneen ak yeneen ak yeneen yi nekk ci collectif yëpp sax mënuma koo lim bëri na fi te bu ñu xoolee li ci bëri benn benn benn xeex ngeen am lu tax yaanaamaal mi ngi fi woon depuis beneen bu waree ñëw te yéen ñëpp ngeen bokk li ngeen xeex ñee du ñu ñëw rek doolee ko si yéen mu nekk benn xeex mais kii dee euh, taxawal benn ki taxawal benn ki taxawal benn ki taxawal benn pour lan. yàgg na ñoo retrouver wu ñoo lank y avait tous ces gens yi ñoo aar ñu bokk y avait tous ces gens yi nga lim M2D bii nii y a tous ces gens yi nga lim donc des fois quand c'est euh, conjoncturel spontané on se retrouve maintenant ku nekk danga am sa sa sa sa ADN sax laa mën a wax am na ñoo xam ne euh, voilà xeex par rapport ak impérialisme bi la am yeneen ñoo xam ne euh, c'est plus euh, spirituel religieux et cetera am ñeneen ñoo xam ne c'est des mouvements voilà qui se battent contre les reculs démocratiques ak euh, qui prône plus euh, euh, nu mu tuddati encore mooy am benn plus avancée démocratique que recul démocratique bu ñu pendre benn jën fële sax ñu ne waaye Y'en a lu tax doo ci da ngay rafetal rek mais dafa mel ni Y'en a xëy na mu fayir quelque part mission am ñoom duñ ci senti seen bopp bu ñu naroon ñëw pour renforcer duñ ci senti seen bopp moo tax ñuy démarqué wu créer leneen. kon de Dakar 221 de surtout xuur DKR 221 bu changé waaw DKR 221 de kon surtout du xuur dabb la ah. parce que day invité ñoo xam ne dañoo faillir mbokk internautes yu Dakar 221 ba tey ñu ngi ci seen euh, interview ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Simon Kouka nekk nag membre ci biir yaana mar ñuy wëyal ba tey wax ci mouvement m bi nga xamante ni nag euh, ci seen i nag wax muy mouvement citoyen yu bëri sax d'ailleurs tout le temps rek ci seen i langage ñu dégg ñu naan on exige de l'État on exige du président Macky Sall keroog président Macky Sall ci bu muy recevoir ñenn ci société civile bi xamle na ni ne moom kenn du ko exiger lu ngeen koy tontu. Hmm. c'est normal mu wax loolu parce que seen posture la l'état l'état doit paraître fort l'état doit paraître mais bon bu ñu xoolee événements yi ni passé je crois que les exigences voilà maintenant on n'est pas là pour jéem a wàññi ay nit wala jaay les victorieux parce que pour man y a pas de victoire parce que y a des morts quand même xam mais exigence am na foo xam ne boo fa tolloo loolu ngay wax mu mënoo auto utiliser benn benn terme parce que forte force reste à la rue au final force force reste à la rue. m bokkoon na ci seen euh, xeex muy ñu daal di bàyyi ñoom Guy Marius Sagna Assane Diouf et consorts bàyyi nañ leen m dafay dee wala. non jeexagul y a des autres yoo xam ne siiwuñu ni Guy Marius Sagna siiwuñu ni Assane Diouf wala Clédor Sène am na ñeneen euh, donc euh, on on on demande la libération des jeunes de FRAPP yu ñu arrêté université ñoo xam ne ay ñoom ndongo yu ñu arrêté ndaw ñooñu yëpp nga xam ne kenn xamul leen c'est c'est tout à fait normal que le combat continue pour pour ñoom et comme je dis il y a pas de victoire ba ñuy arrêté parce que actuellement ñun ñëpp xam nañu ce qui se profile mooy le troisième mandat tant que tey du leer ci boppu nit yi ne président Macky Sall du def troisième mandat xam nga yenn xoxatal yi yenn arrestation tout azimut tamit ñuy autoriser tamit rassemblement a droit de marche et c'est ça c'est ça les combats en fait c'est un combat pour la démocratie muy bañ di reculer tey euh, y a certains ministres qui doivent démissionner parce que tey quand tu entends le, le discours du ministre de la justice tu te dis qu'il mérite plus d'être ministre il doit démissionner ah manifestation yi amoon ay lutteurs ñoo wàcc Euh, ñii ay terroriste lañu ay nana ne tu traites ta jeunesse de terroriste le ministre de l'intérieur traite sa jeunesse de terroriste ces ministres là doivent démissionner bu ñu démissionner on doit les les les les les les dañ leen war dàq tu vois donc démettre leen de seen fonction yi moom laa bëggoon wax donc à un certain moment le combat il est multiple hein il est multiple daf fi nekk et tey tant que les combats ultimes mooy tey il faut que mu am séparation des pouvoirs président bañ a nekk gérer exécutif yore judiciaire yore législatif comme on on s'est toujours battu contre ça et on va continuer à se battre contre ça. ñu daal def remaniement parce que erreur de communication yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fan yi ci ci ci ci côté nguur gi euh, remaniement moom c'est inévitable pour yow. tout état qui se respecte l'aurait fait depuis longtemps doo sax xaar remaniement tout état qui se respecte nag laa wax mais bon vu qu'on est Bougane Gueye Dany moom itam mu ngi ràññeeku fu mu toll nii à travers ni mu koy defee eh, ci ci wàllum politique ak mouvement wum gëm sa bopp mu am tamit benn euh, euh, euh, bëgg-bëgg muy jiite réew mi ci atum 2024 ci ci ni mu ko waxee démb ci tribune Faram Facce TFM wax na fa ay kàddu yoo xamante ni déjà est-ce que am ngeen ak moom relation bu est-ce que ni ni ni ñu gisee keroog Ousmane Sonko dem na seeti ji mouvement Y'en ci quartier général am est-ce que Bougane Gueye Dany mu ngi ñëw ci yéen waaw moom ñëwul ñëwul ci ñun mais yàgg nañu daje ci ay ci ay combat yàgg nañ ko seeti di ko wax yenn euh, action yu ñu bëgg a mëne mu ci mu ñuy accompagner aussi à travers sa télé et tout donc dans le cadre de Ñoo Lank aussi seeti woon nañ ko dans le cadre de aar li ñu aar li ñu bokk seeti woon nañ ko je me rappelle et que voilà c'est c'est ça aussi la démocratie mooy ku ci nekk bu la ko constitution bi permettre mais nga samp sa ndënd décider laaj réew mi e Bougane à sa place yow tu as ta ta place le caméraman à sa place voilà et c'est ça la démocratie il faut que muy bëri il faut que nit yi di di bëgg réew mii di bëgg di ko bëgg a jëlalee benn point yóbbu ko benn point di di mooy dëgëral démocratie aussi quoi est-ce que ces ambitions aussi nekkul ñoom ñoo tax fu mu toll nii euh, ñu koy tënk di ko tànc ci lu bari on a vu le cas de de Diony Diony il en euh, est-ce que benn instant nekkul ay ambition politique moo tax ñu koy tànc ni ñu koy tàncee nii. ba moom la ñuy wax boo amee en face ñoo xam ne kuy yëngu wala wax loo xam ne arrangé wu la ñu tànc la le mouvement Y en a marre là on a on a subi dix ans d'oppression dix ans d'attaque dix ans de calomnie. leen fi ay financement yu jóge de ay jiiñ lu nekk ay dem jël suñu ay partenaires nangu seen ay agrément ay ay loo xalaat mais on est toujours la et c'est ça maintenant képp koo xam ne tamit da nga nar a nekk ci terrain bii nii ñu nekk de la contestation di dénoncer mais je te dis que attends-toi à tu vois mais tey de mouvements comme Y a marre on a subi toutes sortes de coups et on est toujours la donc muy Bougane muy les autres opposants ils vont continuer à subir des coups il faut qu'ils se préparent parce que c'est la teg c'est la marque de fabrique dañuy toog ñi toog nii Macky Sall malheureusement président Macky Sall nañu rafetal malheureusement lenn rek la xam mooy kase mooy tëj looloo tax j'aime bien cette phrase de de Guy Marius Sagna qui dit est-ce que xam nga lu tax xam nga lan mooy jeu préféré au président euh, Macky Sall xamoo ko lido la lido xam nga lu tax parce que jàpp rek jàpp tu vois donc j'aime bien cette cette cette cette phrase de lui et bi mu toogee ba tey malheureusement même s'il y a eu des, des certaines choses en bien parce que tout n'est pas mauvais mais la seule chose que tu retiens c'est quelqu'un qui interdit les manifestations qui emprisonne des militants bon on va dire activistes comme yéen noonu ngeen bëgg ñu leen di woowe ay activistes leen nga ngeen bëgg ko nga ngeen bañ ko Simon ñu ngi lay jaajëfal. waaw merci beaucoup ci dalal bi di jégalu su fekkee wax nañu wax wax wax bu ëpp di wax jeunes yi encore euh, lu combat continue on n'a pas encore fini intéressez-vous à chose politique boo leen ci intéressé wul ñeneen euh, ñoo xam ne ay médiocre lañ ñooy ñëw jéem leen gouverner et à chaque fois moo ñuy yóbbu ci guuta yi donc battez-vous